7 TV ñëwaat ak yéen ci seen émission 7 voix du euh, kon nag ñu amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen chaque mardi ginnaaw bu vingt h jotee ànd ak yéen ci nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ak li ci xol seen xol moo xam muy social moo xam muy hommage moo xam lu mu ci mënti doon rek li ci réew mi la ñuy waxtaanee ak ñi koy dund ñu nuyu leen bu baax a baax di leen ziar foo leen mënti nekk di leen bàyyee xel. di leen wax ne rek euh, jamono ji ñuy wax ak yenn ñi ngi Pikine tali bu mag pikin tali bu mag nag ñu ñëw euh, seet si suñu yaay euh, bi nga xam ne rek mooy soxna jaara waaye ñëw seet si waat suñu beneen yaay boo xam ne léegi dinañ ko bàyyi mu présenté ki ñu fas yéene waxtaanee tey muy soxna su màgg soxna soo xam ne euh, ku ko xamul euh, ci mim réew yaakaar naa bëriwul ndax ñi mujjee juddu sax dañ leen nettali li nga xam ne mooy ay jëf-jëfam yu baax ak ay jaar-jaaram muy soxna Aïda Ndiaye Badaloo ñu dàkkantalee ko turu borom kër gu sell googu nga xam ne rek moom it euh, lépp ci lu baax rek da ko cay jàppale ànd ceeg moom ba mu rafet ba tax na nag tey moom la fa fas yéenee waxtaane muy loo xam ne dina tiis lool dina metti lool waaye dinañ ko fàttaliku ndax nag jëf jee rafet moo tax fàttaliku bi euh, daal di rafet suñu yaay nag doonoon koo xam ne dafa jëloon léppam jox ko soxna Jaara Buso ma ca Poroxaan ba muy dem Porokhane euh, booba yàgg na booba ñu bari xalaatuñ ko mu dem fa di fa liggéey di fa liggéey di fa liggéey ba lu bari fekk ko fa euh, liñ naan tungu ne du teew ñuy nataat moo tax dañuy dem seetaan yi suñu yaay euh, ñu bàyyi ko rek mu daal di nuyoo yaay booy ñu bàyyi la nga daal di nuyoo mm. laata ñoo dem ak yow ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax. Mm-hmm. leen ziare. tur bi. man Soxna Diop laa tudd. Soxna Diop. waaw maa ngi leen di ñaanal yàlla jàmm di ko sàkku ci yéen ngeen di ma ko ñaanal. amiin. ma di leen nuyu nag. Mm-hmm. di leen jaajëfal ngay doomu di ci ki nga xam ne rek moo fi moo fi jóge muy Soxna Ndiaye Aida Soxna ayda Ndiaye Badaloo ma bàyyi la rek euh, nga wax ñu euh, ginnaaw bi nga nuyoowee loo ñuy wax ci moom. waaw Soxna Aida Ndiaye papaam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. sama yaay di benn bu jigéen rek am ay càmmiñ nag. waaye papay ayda mooy taaw mm-hmm. ñu koy wax Alaaj Sëriñ Njaay Aïda nag boo gisee mu xuus ci yoonu Sëriñ Tuuba dañ ko cee nàmpatal mu juddu ci nag ay maamam liggéeyal Sëriñ Tuuba loolu dañ ci ñëwaat léegi ci détaillé lay doon mais laata loolu dañuy dem bàyyi ki nga xam ne mooy soxna Awa Diallo mu daal di ñu ñëwal ci portrait soxna su tedd soosu di euh, soxna ay Ndiaye badaloo léegi lay doon sur la 7 ci seen émission 7 voix du cœur. Aïda Badalo mu ngi juddoo fii ci Ndakaaru ca Ñaay Cokkeer quartier boo xam ne fa la màggee moom nag jàngul woon français waaye dem na daara bi mu jàngee alxuraan ba noppi ci la dal di jàng àdduna ci noonu nag mu dugg ci commerce. ay waajuram nag ñoo ko dugal ci mbir mi ndax nag amoon na éducation bu dëgër muy fàttali ne ki fi doonoon jëkkëram di badaloo moom moo tax mu fonk liggéey li tax nag ñu koy duppee ay danjaay badaloo mooy ne dañoo dugal turu jëkkëram ngir mën koo ràññatle ci biir kër gi nga xam ne fa la nekkoon ndax nag ñu bari ci ay waa këram dañoo bokkoon ak moom tur ñoom ñaar seen complicité ñëpp ko doon seetlu te moo ne ñeenteelu jabaram la woon am na ci sax kum ko tuddee doom moom nag murit sadix la jàppee boppam te lu mu fier la ndax nag dafa bëggoon loolu cité bi nga xamante ni fa la soxna Mariama Bousso bàyyeekoo ndax moom moo nekkoon sëriñam moo tax dundam yépp poroxaan la ko jagleel ndax dundul lu dul ngir soxna jaariyatulaahi moo tax entreprise am yu bari nekk fi ci Sénégal wala ca bitim réew dalee na duppee poroxaan kër maam jaara moom nag doon na yëngu bu baax a baax ci wàllu import export moom nag lépp loo xam ne daal lu lew la daf ko doon jaay waaye li ñu ko gën a xamee mooy njaayum porcelaine porcelaine yooyu yee daan na jógee ca États-Unis dëgg la nag emploi du temps daf daan chargé loolu waaye li ko gënoon a neex bokk na ci mu nekk ak njabootam ndax moom maman Poul la doon jàppee boppam te dafa bëggoon di nekk ak ay doomam waaye nag ñu bari ci ñu ko xam dañoo jàppoon ne dafa tàng waaye moom li mu xam la rek mooy ne daal lu ni mel lu ko jàppale bu baax la ndax sax daan na tàmm di nettali benn mbir boo xam ne ab sàcc bu jëloon ay fauteuilam waaye ba mu xamee ne Aïda Ndiaye Badaloo moom moom lu ni mel dafa dellu si ci ni mu gën a gaawee delloo si fauteuil yi waaye moom ci boppam sax nee na lu ni mel da ko defoon ay reetaan ci atub 2015 la ñuy yëg ak génnub àdduna Aïda Ndiaye Badaloo moom mi nga xam ne nag dafa demoon Minna commission médicale bu commissariat bu pèlerinage bi nag moo ko doon xamle ne dañu ko fekk identifier ko moom ay Ndiaye Badaloo ginnaaw bi ñu ko yëgalee doomam moom àllaloo moom nag mu ngi doon dunde fële ca France dafa ñëwoon Sénégal rek ngir gunge yaayam ca Makka ñuy fàttali sax ne loolee bi mu amee sëriñ Mountakha Mbacké di di sëriñu Aïda Ndiaye Badaloo yónni woon na ab ndaw sëriñ Moussa yi Mbacké ca kër ga ca Joppal ngir ñu xam ana naka la ñuy doxalee ginnaaw gi nag njaboot gi dal di jël dogal xamle ne dinañu organiser récital de Coran ngir ñaanal ko ginnaaw ñu ko jébbal boromam ñu ko doon duppee Baye Fall bu maam Jaara Bousso ndax dëgg gu mu dëggu joxe boppam ci yaayu Serigne Touba. jërëjëf ci histoire comme ni ngeen ko déggee muy loo xam ne rek lu neex ci xol la. ay maamam lañ daan def moom la daal di yeggali liñ naan li ci maam sa a koy jël yëf yëpp nag euh, tata euh, Soda. Euh, yaakaar naa dafa soxna Diop. dafa commencé ca maam Mballo mi nga xam ne tey jii moo waral màggal gi nga xam ne rek chaque année ñu dem màggal ko ziyaar ko fële fi nga xam ne rek mooy Kër Mballo muy lu am solo ma bàyyi la nga xus ci loolu. Ah, boo gisee Aïda Ndiaye ma wax ci ci maamam. Mm-hmm. maamam jooju mooy maam Baalo. Mm-hmm. nag dafa jiitu sëriñ Touba. maam bi muy sëñ Touba bi muy feeñ boobu fekk na maam dem bu yàgg. Mm-hmm. waaye nag maam Ba maam maam Serigne Touba moo feeñal maam Baalo. dëgg ndax sëriñ Touba bi mu ñëwee sànn bu tëddee ba guddi day gis benn leer mu ne leer gii na ngeen dem xoolal ma ko ba xam ci penku gii la ne. Mm-hmm. yónnee ndaw. booba kii mambaala fi ñu ko denc raaf na mm-hmm. ndax waa dëkk ba ci boppam dañ ko faa denc ba pare tuxu waaye nag ba ñu tuxoo tamit dëkk bu ñu dem day lakk mm-hmm. dëkk bu ñu dem lakk mu lakk ñu ne leen da ngeen di delluwaat ndax fa ngeen nekkoon ndax fa ngeen fa ngeen bàyyi wàll yu ngeen fa bàyyi léegi nag ñu delluwaat fa nag ci la sëriñ tuubaan nag ne leen leer gi may gis fii dem leen xoolal ma ko joxe suuf ne leen bu ngeen demee ba gis fa mu ne ngeen sotti fa suuf si mm-hmm. tibb ca suuf sa indil ma mm-hmm. ka mu yónni woon sotti ca suuf sa tibb ca suuf sa indil ko màmbaalo nag moom jamonoom jamonoowul kenn mm-hmm. ndax màmbaalo dafa amoon wilaaya goo xamante ne bi jamono wala woon ak kenn ci àddina lu ne def na ko ci saayir lu ne def na ko ci baatin doon nag jàngalekat xiital ay doomam ci woon jàng xiital woon ay sëtam ci jàng ba moo tax leer googu ñëw ci moom ñëw ci sëtam bi ñëw ci sëtam yi mm-hmm. sëtam yi laay wax ndax maamu Ayda Njaay sëtu màmbaalo la mm-hmm. maamu Ayda Moor Bese Njaay moo ko jur Moor mm-hmm. Bese moomu cere yi lay jiñ daan yóbbul sëriñ Touba xomaak Mamor Bese moom moo ko daan yóbbu xomaak fa sëriñ Touba nekkoon sëriñ Touba moomu bi Mamor bi bi Mamor Bese daan ñëw xomaak di ko indil sëriñ Touba booba maami Ayda Njaay ji ñuy wax jeesaar euh, mhm. moom la bàyyil ak soxna aw bu sa yaay sëriñ Fàllu mhm. kooku moo ko yoroon sama maam da daan wax sama loxo bu ndaw bii ci laa daan mooñal cere jiñ daan cere baraay jiñ daan yóbbu sëriñ Touba xumaan kon Aida am na foofu ñaari cër mm-hmm. ndax maamam mbaalo sëriñ Touba ko feeñal Mor Bese Njaay mi nga xam ne moo jur baayam topp woon sëriñ Touba ci xomaat mm-hmm. maami Aida Njaay ki jur baayam ku jigéen mm-hmm. ñu koy wax jeesaar kooku moo daan lay moo daan mooñ cere lay ji di ko jox ñu koy jox Mamor Bese Ndiaye. Mhm. mu di ko yóbbu xomaat. Euh, foog naa sax yaay ci yu béy ne euh, maamam euh, ginnaaw bi sëñ bu mag bi nekkee ci gaar gi ci raay bi moo ko maanaam indi indiloon li nga xam ne rek mooy ngëlm. waaw kay. Mhm. kooku nag ba léegi. Mhm. moo jur maami Ayda Ndiaye moo jur yaay Ayda Ndiaye bu jigéen mooy baayam. ñu koy wax xaali. xaali maam xaali. moo jur. yaay Aïda Ndiaye mooy papaam. Mhm. maanaam Aïda Ndiaye dafa am cër ci baayam. maanaam moom moom sëriñ bi da ko wër. waaw kay dafa am cër ci baayam am cër ci ndeyam. ci ndeyam xaali moom moo jur yaayam. Mhm. Mor Bese Ndiaye ak Jeesaar ñoo jur papaam. Mhm. waaye nag ba léegi ñoom seen maam yëpp ñoo toppatoo ñoo toppante. dëgg la maami Aïda Ndiaye bu góor ak maamam bu jigéen ñoo bokk ndey ak baay. kon Aïda dafa maanaam maanaam maanaam ay mbokkam daal dañ koo wër. dañ koo wër ci eh, sëriñ bi. yaayam mooy bàjjanam. Mm-hmm. yaay ayda mooy bàjjanam. Mm-hmm. papaam mooy nijaayam nijaayam. Mm-hmm. Euh, muy lu am solo euh, ba tax na rek euh, il fallait ñu dugg ci histoire indiwaat loolu ndax nag muy loo xam ne rek ñu ngi koy dégg ba tey muy kër mbaalo di kër goo xam ne kër baax. kër cosaan euh, du ma ci génn mukk te nuyu ma sama yaay jooj di yaay Ngoone Ndiaye euh, di yaay ci Aliou Ndiaye euh, suñu mag jooju Aliou Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu famille waa kër mbaalo yëpp ñoom Ndeye Khady Ndiaye ak ñoom ñëpp moom mi nga xam ne sax Ndeye Khady Ndiaye moom moo facilité waxtaan bi tey jii mm. ndax moo ñu facilité li nga xam ne rek mooy rencontre bi ma bàyyi la yaay nga daan ñuy wax ci suñu si sa cousine boobu nga xam ne li ñu naan doomu nijaay doomu bàjjen waaw laaj nga ma koo xamante ne bii sama xarit. Mm-hmm. ku ma bëggoon waaye nag bala maa ñëw foofu dama lay wax nag na la Aida Aidaam ñépp la. Mm-hmm. ñi bokk ak yaayam ñi bokk ak baayam ndey ak baay ñépp yóbbu na leen màkk ñi bokk ak ndey ak baay ñépp yóbbu na leen màkk. am na jarbaati papaam yoo xam ne sax yóbbu na leen màkk mm-hmm. waaye nag may ñëw sama diggante ak Aida ku baax ku ma yëgoon mm-hmm. sang boo xamante ne bii lu ne defal na ma ko lu ne nag lu ma di lu ma digoon lu ne da koo fekkee wu rek waaye kon mu defal ma ko mm-hmm. daf ma daan woo ba ma ñëw Tante Soda Sarr at ma ma ba ma jëkkee dig yoonu màkk Tante Soda fa la ko fekk daan soo toog ma toog mu ne ma soxna Diop bu déwénee naa la yóbbu màkk mm-hmm. yàllaa ko dogalul daf ma daan woo bu ma ñëw mu jox ma ceeb jox ma dawlin jox ma suukar jox ma lépp jox ma xaalis ni ma jëlal taxi mm-hmm. ma ñëw jël taxi wàcc sama bunt kër balaa loolaa jeex mu woowaat ma ma ñëw amul nag kenn ku ko masa ku mu gëm ci togg ku dul man lu mu daan togg lu lu ne man lay woo. Hmm. ba cere sax daf ma ko daan wax bu daan dem màkk daf may daf may woo ma ñëw mu ne ma defaral ma cere ma defaral ko cere defaral ko yépp mu ñu weer ba mu wow. Hmm. mu dem at ma muy dem nag. nga xam ne keroog loolu la yàlla dogal bi ko ndeysaan wóolu la lool ci waañ euh, dinañ ñëw ci loolu laata ñuy dem ci at bi muy dem euh, dañuy dem seetaane suñu yaay soo euh, Soda Sarr moom mi nga xam ne rek maanaam jege woon na ko jege ba nga xam ne tuba fakal la ñu dem xool ko daal de soit léegi ci waxtaan bi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur man ne yàlla dafa dogal bi nga xam ne fii ñu toog ñi tey yaayam ma ñëw jënd ko dëkk fii toxu si fi fekk ñu fi 1963 mm-hmm. boobu ñun yëpp ay tout tànk la ñu samay njaboot yu bari si kanamam lañ juddoo moom itam ay njabootam sama kanam la ñu juddoo mu ñëw fii dem ànd ak yaayam ak papaam ak waa këram ñëpp nekk fii si kër gi ngeen ñu fekk mu nekk xalit nekk xale bu am jom laa xam si moom teel a futti ku teel liggéey ndax si loolu la juddu ci la yaru loolu laa xam si moom teel liggéey teel a juddu teel a teel a jàppale nit ñi ba man mi di wax ak yow bokk naa si ñi mu jàppale xamul lu may liggéey bëggul kenn ku not nit direct rek la xam di dëgg rek ci la soxna Aida Ndiaye daan moom la bu ne moom la màggaale soxna jaatulaay xanaa bëgg ko loolu yàlla def rek mu nekk tout tànk boobu daay poroxaan ubbeegul dara amagul muy jaay muy jaay jël saagam tudde ko soxna jaara te boobu sax demagul poroxaan waaye tudde ko maam jaara rek tudde ko maam jaara di jóge fii taal wotoom di dem poroxaan di jóge si kër yi gii ñooñ ma fekk suy dem day togg def si oto bi dem bu demee tëdd sa barab ba sa poroxaan tëdd sa barab ba ñu naan kii fu mu jógee fu mu jógee mu séddale ba màggal gi jeex mu daal taala mu tam ñibbisi jamonoy dem di dem ba ñu wax ko sëñ Bass Poroxaan te sëñ Bass Poroxaan fii la yaroo suñu kër boobu ay daa ngi si kër gi nag ñu xamante nag mu boole ko yaayam ami soxna mi Mbàkke ko kii di sama yaay la kër Baba Siru laa ko xamee woon moom daal di ñëw si barab bi rek fi toog demul fenn foofu daal fii rek la bëgg si mu ne ko man soxna jaar rek laay dund moom laa bëgg moom laay liggéeyal si loolu nag lañ ko bëgg sëñ Moussa Bassirou nag ba sëñ Moussa Bassirou woo ko boole ko si liggéey bi ànd ak moom ubbi daara ji 2005 ubbi daara yi maam jaara jee booba élèves yi booba soxna jaar yi juróom fukki rek la ñu tey ñu ngi si juróom benn téeméeri maam jaara ak ñett léppam yiw la léppam bëgg nit la lépp dimbali nit la xanaa dalay xool rek nga ne jànk mu toog la gis ni ngay doxee mu ñu la kaay defal lii defal lii defal lii ba defal lii di nga am dara bu dara lu baax booy tàmbali yor sa ñaar dërëm mun la góonti na na ñaar dërëm yi set bu si dara soo ko si raxoo rek am fukki dërëm muy ko baax ku mën a jàppale nit bëggul ko not nit. nan nga boobu boobu boobu tabaski dootuma ko fàtte ba may dem barsaax metti lool mhm. tiis lool ñu xëy ba di di tabaski jot ñu way leen di ñu yëg sa kawam ma ne xale yi taal leen rajo bi ndax ñu déglu julli yi sama doom bu góor bi ni ma nekk moom yëg na ko te man yëguma ko mu ne ma yaay baax na nañ toog rek nii. déglu nii xale yi frikorool bi nii moo dàq si ko waaye bu taar bi day indi ay problème ak yooyu ma daal dem julli ci kër sëñ Touba ñëw ñu añ man ni lu ngeen añ man ni man daal doy na naa ñamtu ci ndaw rek daal di sangu dem nekk waa kër gi yëg nañu ko waaye bëgguñu ma koo wax ma daal di dem jàpp daal dem julli si jumaa ji julli ba ba ju toog ba ñëw toog julli ñaar raaka toog jël sama téere alxuraan di jàng sama ñaari doom daal di ñëw jiitle ñi di ma def nii di ma def ñu ne ma soxna mel ni la ñuy woote ma ne ñoo ket yokku ñu daal taxaw ma ñu leen lu xew ñu ne ma yaay ma ne sëy ñu ne ma soxna sama yaay ay dafa bokk si affaire bi daanoo ñu téye ma ne ma yow yaa ngi si jumaa de ma ne lu ngeen di wax ñu wax ma ko ñu jullee pare ànd ak waa jumaa ji yëpp ñëw si kër gi soxna si way tabaski du ma ko bi may dem di ko fekk barsàq barka soxna jaara billaahi wallaahi taala bu metti euh, xanaa su ma jullee bàyyi ma jullee ba àjjuma ji ma nekk ni te maa ngi ko si ñaanal di ko ñaan yàlla na dajeg soxna jaayatulaay waaye nag sant yàlla rek ndax am na ci loo xam ne musuma gis ko ko am damaa ànd ak moom dem daaru minam ak ay nit ñu dem gis sëñ Moussa Basiiru ba ñu demee Ousmane ku ñuy wax Ousmane Thiam dem ni sëñ bi soxna Ayda Ndiaye di ñëw ànd ak ay nit mu daal ne dalal leen ñu daal ñu dalal maa ngi toog ñu dalal ñu Ayda génne bagage yëpp teg ci kanamam mu ne sëñ Ousmane mu ne Mbàkke mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko soxna Ayda mu ne Mbàkke mu ne ko yow du ma nëbb dara si maam jaara yow rek laa nangu nga man ma si maam jaara billaahi wallaahi taala maa ngi toog yow rek laa nangu nga man si maam jaara ah soxna ay da mu ne ko Mbàkke mu ah, de nee na dinañ dolli benn classe beneen classe booba classe gi ñett la mu ne ko Mbàkke léppay ñëw léppay ñëw li toog naa sëñ Moussa Bassirou wax ko yow rek laa nangu nga man ma si maam jaara te yooyu jamono dépense bi ñetti million la woon poroxaan ñetti million sa yooyu jamono tey ñu ngi si te ngi si fanweeri million ak ñetti tey booba ñetti million dong moo dépassé ay daa ko gàdd woon waaw ba ay daa ko gàdd woon ceeb bi déwlin ji lépp moo ko gàdd woon toog nañu poroxaan ma dem fay saali mi ñëw gaare wotam si buntu daara ji ne ana jëwriñu daara ji ñu wax soxna Ayda ñu ne ko mu ngi biir mu ne wol leen ma ko ñëw ni ko soxna Ayda mu ne Mbàkke mu ne ko ñu ne ah, soxna Mariam de laaj Mariam Sall mu ne ko fii <laughs> duma fi jóg nekk bu génn ñëw fekk ma fii Mariam Sall Mariam Fay Sall wàcc wotoom ñëw fekk ko si Ayda Njaay ci daara ji mu ne ko fii sëñ Mountakha Basiru sax su ñëwoon fii la may fekk si mhm. lii man fekk naa ko kooku du kenn soxna jaar waaye def soxna jaar du kenn si moom mhm. hmm. jërëjëf euh, xol yi tooy ñu duggaat ci bés boobu di bés boo xam ne euh, Sénégal wërngal képp monde entier. ba ca makk googu nga xam ne sax euh, boobu moo nekkoon fanweeri ajjam ak ñaar euh, kenn du ko fàtte. Euh, tata na ma bàyyi la rek dégg nga taasoo da xol yi tooyaat na. ndax nag koo sopp bëgg ko mu bëgg la mu lay defal teraanga bu dëddoo dee ah, metti bu dëddoo rek nga yëg ko koo sëkkal jàmm rek bu dëddoo nga yëg ko waxatuma la koo xam ne du lekk dara bàyyi ay mbokkam ma bàyyi la nga àddu ci loolu. lekkul dara bàyyi kenn. Mm-hmm. ñëpp la teral. li nogay muy wax rek looloo ci am ñépp askanu njëyeen askanu kër maamam bi mu bokk muy maam xaali mm-hmm. amul ku Ayda Njaay teralul amul ku lekkul alalam amul ku lekkul dërëmam daf ñu daan woo ba mu ñëw mu ñuy teral par kenn kenn kenn par di ñu jox alalam di ñu jox ñu lekk di ñu jox ñu naan Ayda moom benn mbindeef rekk la woon bu yàlla wàcce woon suñu biir amaatu fi nag amaatu fi de ayda amaatul fii. Mhm. Euh, du yomb yàlla na leen fi mu leen féete woon yàlla na leen fa suñu borom féete euh, ba tax na rek euh, dama lay bàyyi nga wax ñu ci bës boobu nga doon waajal léegi muy bi muy dëddu muy bés bu kenn dul fàtte. keroog bi muy dem màkk. Mhm. keroog bi muy yóbbu ñii hôpital ñi seeti malaat boobu man fii lañ ma bàyyi. Mhm. boobu yaa ngi pare yaa ngi pare euh, maanaam yóbbal beeg yooyu yi muy yóbbu. keroog dama yàlla moo ma fi moo moo ma fi indi. Mhm. indi fi ñii far ñii di dem hôpital man waaye man bu mu génnee néegu yaayam daf ma téye ci biir kër gi di ma gësëm di ma gësëm di ma gësëm waaye booba tamit gis naa ci moom leer goo xamante ne bii ak mu dellu si waat daal. dama dem ba sama kër ma ne man de Aïda Ndiaye mi dafa changé comme xale barki yonent bi amaat yaram xeesaat xam naa ñi sax bàyyiwuñ ci xel mhm. waaye man dama ko xool ak ni ma doon gësame ci biir kër gi rek waaye nag ah ba mu defee foofa metti na boobu boobu yaa ngi avant muy dem boobu yaa togg yaa defar lépp keroog ba muy dem fii lañu daje fii ci kër gi gii nii moom la Ndeye saal doon nettali fii man demuma këram fii lañ daje fii moom fii la ñëw dugg ci néegu yaayam bi di fi ñaan di fi ñaan bi mu génne la dajeeg man ci buntu kër bi ci buntu ci ëtt bi di ma gësam di ma gësam di ma gësam di ma gësam ba mu neex ko mu génn ànd ak ñi daal taal otoom dem waaye nag ba yàlla dogalee tamit mu des màkka man de pereseen laa doon jaaye mm-hmm. bi may toogee di jaay ba ay ay ay ay heure daal suñu benn sama benn doomu ndey bu dëkk caare moo ma woo ne ma waa soxna Diop lu xew lu xew màkka ma ne ko ma màkka xaw ma lu fa xew de mu daal di coupé bi ma toogee toog ba ay 3 heures sama rakk bu góor bi nga xam ne mooy sama caatu yaay daal di may woo daal ma soxna Diop Sénégal lan ma fi xew ma ne man de senegal xaw ma lu fi xew am na ku ma toogaloon defe naa dëgg njaay la xaw ma. ma ne ko man de man jaar njaay daf ma wow léegi ne ma lu xew màkk. dégg nga. kii woowaat ma kii woowaat ma ne ma lan moo xew Sénégal waaw lan moo war a xew ah, ma ne xaw ma lan moo xew ci la ñu laalee nag ñun suñuy bagage daa di ñëw mu ne ma lan moo xew ci seen famille bi ma ne ko ñun suñu famille dara xewu fi mu ne ma tee ngaa delluwaat sa kër nga xool. man bi ma ñëwee fii ci buntu kër bi xool naa gisuma kenn ma continuer sama kër sama borom kër nag yëg na ko waaye moom nee na ñemewuma ñemewuma ko wax man toog naa ba xëy ba dem nduggi laali samay bagage ñëw ci kër gi yëguma ci dara daal ba sama rakk bu jigéen moo ma woo ne ma yow foo nekk ma ne ko man maa ngi nii préparé mu ne ma am na lu xew de ma ne ko am na lu xew ndax man li xew man kenn waxuma ko ku ma woo soo ma laajee bu ma la waxee yow tamit nga kuppe doo ma waxaat dara ku ma ne lu xew fii rek boo ma laajee ma ne la lu fi xew bu ma ko laajee doo doo ma waxaat dara mm-hmm. ci la nag suñu beneen doomu nijaay nag ñëw nag ci kër gi nag daan ne ma soxna yow am na lu xew de ma ne ko yow lan moo xew fi ñu toogee nii rek ci la Alaaji Mansoor wax ci télé bi ma ne ko kon man lii lañ may doyee mm-hmm. lii lañ may doyee waaye booba metti na man de sama xarum tabaski moom ba léegi duggul sama génne xawma nu mu mel wallahi azim ni ñu lakkee noonu yàpp ba léegi xawma nu mu mel laa la wax metti nag metti ci ñépp metti ci ñun ñu bokkal ndax teral gu mujj mu jaa mu ñu daan teral metti ci mbindeefi yàlla yi nga xam ne yàlla moo ko boole woon ak ñun rek hmm. metti ci nag ci poroxaan ndax Aïda ah def na loo xam ne Porokhane xale yee ba léegi dañ koy jooy. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ba léegi dañuy jooy Aïda. xale yi naka naka la dundee woon ak ñoom ndax mën nga ñu fàttali. ah dund boobu moom xam naa ne njambaan sax daan leen ko defal xam nga njambaan. Hmm? da daan ñëw ñu ne ko Aïda tey njambaan lañ bëgg xoolal mu dem jënd saaku. Dakar Dakar. jënd lépp bu ñu bëggee njambaanu buy mu defaral leen ko bu ñu bëggee njambaan daqaar mu defaral leen ko hmm. te lu muy jënd saako la koy jënd jënd saako suukar defaral leen defar leen ko ci seeni seeni kopp ku nekk mu defal la yóbbal ñun bu ñu demee Porokhane gàmm ba mais mais bi bi yëf yi amee xale yi ñaata at la ñoom ñaata at la commencé ba ñaata at xam nga xale yi bu ñuy dugg ci foofu boobu ay xale yu ndaw la ñuy doon hmm. waaye bi Aïda di bi Aïda di génn àddina boobu am na ci ñoo xam ne ay mag yi jëmm lañu. naka lañ ko dundee ñoom xale yi. metti metti xale yëpp jooy nañ xale yëpp dund nañ foofu loo xamante ne bii am na ci benn xale bu ma doon waxtaanal mu ne ma maam man dund naa fii loo xamante ne bii bu sama yaay nelawoon sax tey nee na li ma dund li ma dund ci naqaru ayda nee musu musu bu yaayam nelawoon du ko dund ndax bëgg ku mu bëggoon Aïda te Aïda ndafay daf leen bëggoon mm-hmm. di leen bégal moom daal luy bégal xale yi rek la doon wër la doon wër waaw mi ngi mel na yow mu yor say doom ci sa biir néeg rek mm-hmm. boo xëyee ne leen lu ngeen bëgg ñu ne nanga mu wutal leen buñ ko seenee ca bunt ba ayda di ñëw ñu daw ñu daw kenn du ko wax nag kenn du ko wax sa morom ayda ñëw na ayda ñëw na noonu la ñu commencé seen sikkar ya di ko woyal di ko woyal di ko woyal ba mu dugg ci néegam amu ci kenn ku muy wax nag puusal wala àndul fee. noonu lañ ko doon teeroo. noonu lañ ko doon teeroo di ko gunge muy nag mu nekk nag nit ku baax nag mu nekk nit ku baax. nit ku baax la ñu ne ndax ay mbokkam a ko wax. ñoo ko njëkkee euh, ba tax na rek euh, dañuy dem wat ay témoignages léegi léegi lay doon sur la 7 TV ci seen émission 7 voix di wax ni rek fa mu nekk yàlla na yàlla yokk leeram te taax ñu ci barkeem. ndax lii yépp dono la ñun suñu maam moo joxoon sëñ Touba ngëlëmu mu yaay ay di njaay maam ay di njaay badaloo moo joxoon ngëlum ba nga xam ne ngëlumu boobu rek moo fi fas bi ñuy toog di ko ziyaare kon bu affaire bi dono la waaw ndax si sunu maam la woon ay datam bu juddoo luy wax ni ndox du bàyyi yoonam foofu rek la la ak ñun waaw ba nga xam ni tamit ba mu ñëwee dafa gën a yaatal mouridisme bi waaw bëgg nag soxna jaara ndax man ni di rakkam am jaara laa tudd mu ibbiloon ma place en 1988 Sandaga sama place boobu poroxaan laa ko tuddee woon temps yooyu ah, joxe place ci tur tax bariwul woon presque boo dee xool Sandaga maa ko fa njëkkoon ibbi ma def poroxaan moom tamit mu ibbiwaat Medina def Porokhane 2 si la marché bi ñu commencé rek ñi di wax daaru Moustique daaru Marnaan ku nekk sa sëriñ nga tuddee ko sa place loolu moo indi nag ba tey loolu mu nekk une brave femme ku jàmbaar Aïda euh, Porokhane euh, màggal bi presque man ak doomam aram loo ñoo ko njëkk dem tax Porokhane mais ñun ba nu demee ba ko ñëwee dañ ko wax poroxaande kenn xamu fa mais Aïda poroxaande xiif lañ fa nekke ak mar ak lekk kenn defu ko fa beneen année ba moom mu ñëw ba kaw Kaolack boobu sachet ndox xewul tamit mu rut mu root bërigo yu mag tëmbal ci glace ñëw ba sa jumaa ja joxe ko fa dem ñibbiwaat mu nekk si xolam nag li nuy wax rekk xam nga tamit euh, ku moom daay dafa nekk nit koo xam ne daay sëñ Touba da koo defoon si xolam. te loolu tamit la toppee woon tu kii euh, jumaa Touba ba di togg di indi di def lépp yal na yàlla xeeb doole parce que kenn mënu wax si moom lépp rek mais jàmbaaru soxna jaara la woon. te tamit nekk nit ñu xam ne ñëpp ko ràññee woon ñëpp ko ràññee mooy si gouvernement bi ñëpp moom nga daan àndal si euh, euh, otoom. moom si boppam moo daal indi embouteillage ndax ku ko taxaw muy policier lu lépp ñëpp ay taxaw di ko wax moom lañ ko daal wax man ko yow day xam naa ne moom mu a ma man kay lii moom sëñ Touba rek moo ko ko defal te xam leen te liggéeyu sëñ Touba moom du réer boroomam dafa ma fekk sama magasin ma toog gaa yi di romb di lee rooluwaat dégg naa am na am na kii amoon na ñoo xam ne yëg nañ ko mais ñeme wuñ ma koo wax mais man man ban ma waxee ni am nañu fi bopp man boobu amoon naa numéro téléphone parce que saa yu demee day bu bu bu jëndee piisam rek daf man li ba daf may woo ba nu demee moom nit ñi mu ne ñuy wax ayda Aïda la bugguma war a ku wax Aïda parce que man duma ko duma d'accord mu ñu koy wax da man ko Aïda xaw ma lan mais Aïda affaire yooyu yooyu moom du du ko dal ndax xam naa ko ndax moom prudente na heureusement te peut-être day dimbali nit ñi mais moom loolu moom du ko dal loolu laa doon wax kenn ñemewu ma koo wax nag boobu rek événement la nit ñi di romb di dem di romb di dem di dem romb ba sama benn xarit ndeysaal moo wax mun ma jaaru doo tëj man ko du ma tëj tëjuma mais boobu maa ngi woo Aïda muy am message di woo Aïda di am message ma ñëw ba jour tabaski ñu rey rey sunu kii tabaski ma dégg man Mansour di wax ni neexula wax neexu la dégg mais am na mais ba tey nag mënuma koo gëm ba léegi toog naa fii sunu kër fekk na ñuy wax nii xam nga dañ ko yéex a saraxal parce que kenn gëmu ko woon ma toog ma dem këram tëdd si kaw kii terrasse bi noonu ci chambre bi salon bi après mu mel ni Aïda daf maa wax ni maa ngi ci ginnaaw mu dugg ay 3 heures du matin di wër di Aïda ngi ci biir kër gi ba léegi mais doy na waar doy na waar jigéen bu kenn mënu remplacer jigéen boo xam ni liggéey moom moo ñu ko jàngal jàngal ko jàngal ko famille bi parce que moom loolu la daan wax da daan wax ni boo ma lebee loo ko leb dina la ko jox ndax bëgg nga réussir parce que nee na moom ñu réussir mooy suñu noppal commencé sur suñu taawu yaay ba suñu caat ñun ñëpp amul kenn koo xam ni ah euh, kiiwu la ah la nga dem même man mi tax man moom ma njëkk woon Rasulilaay ba may woon Rasulilaay 35 ans laa am benn doomam moo fi nekkoon muy aram loo ku moom tax boo moom boo ko dee xool tax doo bëgg a jooy tellement ko jooy xol bi muy def baaxul dama koo yërëmoon. ku ñu ñu bi xam nga aram dafa am këram. këram la nekkoon foofu la ah, am te ku nekk rek sa nitu bopp dar na la sa kanam. ñépp ko yëgandoo benn wax waxam te te boo dee xool monde bi tax ñu ko doon. ñu ko jëlee tax ñun ñuy rakkam yi sax jëlee woon ko woon ñu ko gënoon mun a kii continuer ci ay tànkam rek te xam naa ni tànkam tax kenn mënu koo dab ndax euh, comme Aïda moom tabax na kër kii Poroxaan ba muy dund man la ko bàyyi lool te tamit amuñu woon benn problème parce que luñ daan lekk ak yépp luy ndawal rek xam nga màggal moo boo amee ndawal rek sa yëf màggal ñëw na indil ñu ceeb indil ñu diwlin ba ñun suñu xaalis sax dañ ko daan mujj toog vraiment mu neex ba ñëw mais ku mel ñoo soo Soda Sall ñoom la bàyyiloon jumaa ja kii daara ja ñoom ñoo fa nekk malgré que nag la mu doon def ñun mënuñu ko ba tey mais teewul ba tey ñoo ko yoree ndax sëñ Mountakha mu baax mi dafa wax ni tànk njabootu ay Ndiaye yi delloo wuñ ko ni mënatuñu res màggal bi waañ bi moom du ko mësa nangu ñu sant ko ci lool mais Aïda da daan jël deux semaines di ko togg nag da daan gaari kabiyoom teg si ay nagam dem moom loolu moom loolu ba tey des na parce que Aïda dafa nekkoon nit koo xam ni même bu ko kenn joxul te dafa amoon moyen boppam waaw malgré que ko rek comme ni koy nit ñi doon sollicité bëgg koo jox ñu ñun amuñu loolu parce que ñu tam kenn xamuñu man tey jii suma romboon ñu wax li sama mag la nit ñi dañ may xoolaat tax tellement moom bokkuñu woon yoon waaw mënuma fa woon egg tax wante mi yàlla bàyyiwu ko woon ba nga xam ne nee na moom màggal bu kenn demul tax moom dina dem màggal ko boppam ndax noonu la koy def ci gàmmu bi dafa njëkkoon dem euh, gàmmu poroxaan mu fekk mu lëndëm kiris at bi mu ko demee mu lëndëm beneen at ba dafa ñëw dem sa waañ ba toggalee xale yi mm-hmm. te loolu tamit ci tànkam lañu nekk ku mel ni ñoo taan sooda saal ñoom ñoo yoree waa ñu kii poroxaan te man tamit ñoom tamit vraiment tamit danoo bokk liggéey bi mais man su ma ñëwee tamit damay woo sama néegu ndey ñoom ñépp ñëw fekk si ma ma dem ba Daara Jolof la ma doon def rek maa ngi koy def parce que man maay dem ba Daara Jolof man may jëndi nag yi ñun ñooy ñun kii ñun ñooy dugg lépp soxna ma awa dem ba nekk Poroxaan tamit li ma soxla ba nga xam ne poroxaan laa ko mën a jëndee tamit mooy directrice poroxaan moom laay teg ci loxo mu jëndal ñu yëpp indi ñu ko ba tey ñoo ngi koy def jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ak duñu déglu yëpp man la soxna aram doom ci Aïda Ndiaye Badaloo doon indi seede yi rek jëmale ci suñu yaay di soxna Aïda Ndiaye Badaloo di wax euh, mbokk yi ñuy seetaan ak mbokk yi ñuy déglu yépp ne soxna Aida nit ku bari woon yërmande la ku oyof yanuwul woon àddina nit bu modeste la woon am yërmande demale ci jëmale ci doomu aadama yépp amu ci woon xaaj ak seen ku mënoon a sonn ci doomu aadama la bëggul woon gis kenn di am jafe-jafe bëggul woon gis kenn di am lu ko naqari may seede ne liggéey bi mu doon liggéeyal soxna jaara lu mu duggaloon ci biir xolam la woon mu ñor ko lool fu mu nekk ci àddina soxna jaara la fay taxawee moon ndongo yi nekkoon ci daara ji bëgg daara ji loolu def ko ci xolam ñun ñi di ay doomam des fois doon nañ ko bëgg a jot sax suñ ko woowee daf ñu naan fekk ñu nekk fi Amérique daf ñu naan maa ngi poroxaan may leen ma ma rappelé leen ndax ni ko liggéeyu soxna jaara bi ñoree ñuy seddeel mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan yëpp ne euh, soxna Aida suñu yaay jooju ñëpp la yaayoo woon doomo ñëpp bëgg ñëpp di nit ku oyof ku modeste ku mën a sonn ci doomu aadama te yàlla rek tax ma indiwaat leeral tamit ci fi Aida Ndiaye badaloo bi jóge badalo boobu nga xam ne mooy suñu papa ñu koy toftale ci Ayda Njaay badaloo bi Baay Faalu Soxna Jaara Ayda Njaay badaloo boobu lu mu liggéey la parce que suñu yaay jooju di soxna Ayda Njaay badaloo daf ko jaraloon lu nekk ci àddinaam xaritam la woon doon ko protéger yërëm ko bëgg ko te ñun ñu di ay doomam ay seede lañ ci parce que gis nañ ñu mu doon dundee ak moom xaritam la woon may wax mbokk yi ñuy seetaan rek ne suñu papa jooju nga xam ne mooy euh, El Hadj Badara na doom suñu yaay jooju di soxna Aïda Ndiaye Badara Lo muy loo xam ne tarbiyu bi tarbi tarbiyu suñu papa jooju ak yërëm jim ko yërëmoon ak xarito bi mu xaritoo woon ak moom loolu la suñu papa Badara Lo reconnaître ba tuddee ko suñu rakk joo xam ne mu ngi foofu Sénégal Aïda lañ koy wooyee Aïda Ndiaye sama papa Badara moo ko jur tuddee na sama yaay doom. jërëjëf euh, xol yëpp tooy euh, Sénégal jooy euh, muy lu metti makka boobu yaakaar naa kenn dootu ko fàtte muy makka boo xam ne c'était en 2015 ah 2015 ginnaaw bu mu gane si àdduna en quarante 45 mu judd nag ci at bi nga xam ne rek ci la sëñ Mamadou Moustapha wàññeeku muy loo xam ne coïncidence liñ naan amul muy euh, taw ci li nga xam na rek mooy sëriñ bu mag. waaw ah, dégg wér nga wax. Mhm. waaw kon gis nga Aida moomu sëriñ Touba moomu daf ci nàmpatal. Mhm. ndax euh, papaam papay Aida ma nga nekkoon ca dëkk boobee ñuy wax kër Mbaalo Njaay bi muy am juróom-ñaari at mënul woon wax. Mhm. papay Aida. papay Aïda Alaaji Sëriñ Njaay mhm. ba bi muy am juróom-ñaari at mënul wax hmm? saa isaa jenn moo ñëw gane si baayam ñu koy wax moor Bese Njaay bi ñu ko ganesee mu ne ko mhm. man de sama doom ji ñuy wax euh, Sérif mënul wax mu ne ko anam mu ne ko man ca tool ya mu ne ko dem leen woo ko mu ñëw yaa ngi dégg li ma lay wax. maa ngi dégg bu baax. mu ne ko dem leen woo ko mu ñëw ñu dem wooy sama nijaay Chérif mu ñëw boobu juróom-ñaari at la am. Mm-hmm. bi mu ñëwee taxaw Cheikh Issa dana ko Chérif mu ne Thiel mu ne ko Chérif mu ne ko mu ne Thiel mu ne ko Chérif mu ne ko naan mm. ci la commencé wax. dem na ba am juróom ñaari at mënul wax. muy wéy juróom bu góor. muy wéy juru ayda bu góor. Mm-hmm. Cheikh Issa moo ko wax loolu. kon ayda bu ma lay wax naan la sëriñ maanaam lii mu lii mu def ci sëriñ tuubaa du loo xamante ne bii la loo xamante ay maamam ñoo ko ko liggéeyal xam nga am na liggéey yoo xamante ne bii da koy liggéey mi ngi mel ni rek yow mu togg sa dara rek. Mm. denc ko fenn toggaat di ko fa def toggaat di ko fa def. benn bis ngay am gan rek nga ne xaaral sama togg yi def mën naa koo génne séddale ko sama gan ayda nag la ay maamam dajale woon lépp moom lañ ko jox mhm. sédd nañu ci nag ndax man mi daari bi ma yor péter seen gée mooma woo ba ma ñëw mu ne ma soxna jël ma ne ko ah, mu ne ma xanaa bëggoo yor daayira maam jaara Petersen ma ne ko ah kay mu ne ma demal woote fa daayira hmm? boo fa toogee bu la fa kenn fekku soxna jaar dina la fekk billahi azim keroog ba ma njëkkee wootee daayira maam jaara foofu peut-être takk samay rajo toog naa fa ba ba ñuy julli timis man ak borom rajo yi ak benn xale bu góor bu ñuy wax Habib ñoo fa toog waaye ba àjjuma ji dellusee daa mel ni nit ñi dañ leen ne dem leen peut-être kenn desul ñëpp dagg ñëw ba nii nii boobu fu mu toll ba léegi daayira boobu maanaam seen tas na tas koo xamante ne rek gis nga leen gis nga ñu. Mm-hmm, gis nga ñu mm-hmm. nit ñu def. Mm-hmm, amatuñu fu ñu lal. daanaka. waaye nag ba léegi ba fii ma la koy wax nii su ma ñàbbee sama këllëg bi Peter Porokhane ñëw ñëpp a may jox àddiya. am na ñoo xam ne dañ naan ñun duñ jox kenn àddiya tant que bi ñëwul. ndax loo ko jox Porokhane la koy yóbbu. Euh, tey jii euh, liggéey bi ci Porokhane laataa ñuy ñëw ci loolu sax dañuy dem xolaat témoignage ndax bëri na euh, ñu dem xooliwaat ay témoignage daal de soit léegi si waxtaan bi sur la set tv ci seen émission 7 voix du cœur. ay di Njaay ba loolu sama mag la sama doomi ndey la suñu ñaari maam ñoo bokk benn yaay man yaay moo ma yar fii ci kër gi yar samay morom yu bari ci kër gi waaye kenn jaaxlewu ci ñun ñëpp moo yor kenn ku ne moo la jox kër boo dëkk. kenn ku ne moo la jox kër goo dëkk samay moroom yi ma nekkaloon ci kër gi moo nu daan dundal da daan gaari otaam yebbel nu dund waaw ni ma kenn du ci jaaxle yéen bu ngeen luwee dañ may def ci soleil moo tax bëgguma sama benn mbokk torox billaahi wallaahi asim mi loolu lañ daan waa waaw bëgguma sama bokk jaaxle bëgguma sama mbokk torox jëkkee ko ci doomi ndeyam jëkkee ko ci doomi baayam suturaal ñëpp yal na ko yàlla suturaal fa mu ne ci barke yaa rasulullaahi sallallaahu alayhi ma nekk ci marché luuma yi ñu duma ko nëbb dama ko nëbb dama ko nëbb ku ñëw bëgg maa wax dem ku ñëw bëgg maa wax dem nu nu du ko nëbb rek dina ko nëbb rek ba ma ñibbisi xëy suba teel dégg man soor Jóob daal di ni kilifa gi dem day ñëpp xam nañ ko sama xel na ñaaw ami joxaane woo ma wax ko ami joxaane sama dëkkandoo boo xam ne Ayda moo ko luwee ci suuf waaw ni ma nogay ma ne ko ma yëngali xew ma ne ko am lu xew mu ne ah am na lu xew de ma ne ko dara xewul waaw bu bëgguma sax ku ma ko wax wóor na Seydina Mohamed waaw amoon jot parce que ay dafa miin màkk ba dalee dem màkk booba kenn ñëpp ndaw lañu waaw ñu ni réerul màkk ay da réerul ay dara jotu ko ay da fenn rek toog di noppalu nun loolu rek la ñu jàppoon waaye kenn ja kenn jàppul woon def lenn kenn jàpp ko woon waaw ami joxaani sama dëkkandoo woo ma ne ma yëngali xew ma ne ko la xew mu ne yow ay de njaay de ci ma ne ko bul yeggale ami joxaane bul yeggale rek ma daanu nit ñi dali ñëw jàpp ma nekkati affaire bi am na waa kër yi kenn waxuma dara ma dali ma ko jël jël taxi moo yoroon ñëpp ku mu bokkal dimbali dimbali na la waaw ku mu dimbali na ma sama ma daan tëdd damay fëgg wut laxas di bi yee yaay ji ni ko yaay mu ne ko am reeral dimbali ndeyam dimbali baayam may yaa papaam kër ni ko dëkk fi yaag say soxna may yaayam kër ni ko dëkk fi yaag say famille loolu la liggéey waxam kenn mënu ko sa wax ci lu mu def ci baax ci àddina dama bëggoon ak saalu fees dell famille bi daje ñi ma defal lu baax daje samay morom daje ñëpp daje loolu laa bëggoon ni mu wéeti nii sax bu ma sañoon du wéet nii parce que ñëpp dañoo war na ñëw kenn wax lu mu la defal defal na ma defal samay moroom defal ñëpp defal doomi baayam ay rakki papaam ku jaaxle moo lay jox kër nga dëkk rakki papaam yi bokk ak papaam day ak bàyyi ku ne jox na la kër nga dëkk yóbbu leen màkk yóbbu ay bàjjanam màkk yóbbu ay tantam màkk nun ñi la ni woon tuur bii ñëw la ay yóbbu billaahi wallaahi asimi tuur bii ñëw yéen laay yóbbu yàlla mi ma tiim seere ko Muhammad maa ngi koy ñaanal fa mu ne yal na ko gënal fi mu jóge maa ngi koy ñaanal fa mu ne yàlla na ko gënal fi mu jóge yal na rëcc lu mu doon demee ñun ñëpp la teral bu jógee poroxaan day dugg si akoy ceeb yi boo ko ne ay da jox ma ceeb mu ne ma ñeme nga ceebu maam jaara ma ne ko waa mu ne ma ñëwal jël si kaay ma may la ci ma ne ko danga koy jox jaara jaaree rek jox ma ci billaahi wallaahi lasim su ma joxee ne ma ceeb bala ma neex na ma ne ko neex na mu ne ma mu ne ma mu ne ma kaay jëlaat billaahi wallaahi lasim bu neexee yàlla li ma yox du du yegg defal na ma lu ne defal na ma lu ne kër gi ma dëkk moom ko jox ñaar fukki at ak nangam def naa ko ay teere ngeen dëkk bëgguma kenn sonn sant nañ ko lool néegu ndeyam néegu baayam ñëpp sant nañ ko metti na boo ne famille njaayeen rek macha allah laf cat nga siy teg ku ñu dend rek dimbale nañ la ku ñu bokkal dimbale nañ la buñ ne diw baax na danga naan bokk yaa ko wax te ñoom seeni mbokk lu njëkk a jàppale doog a jàppale ay jàmbur ñun namuñu dara ndax famille njaayeen lépp lu ñu soxla rek ci koñ bi ci quartier bi fépp muy góor muy ndaw muy mag muy jigéen ñëpp dimbale nañ leen jàppale nañ leen loolu daal laa xam si ñoom baax yaatu man moo def soxna jaara Ayda Njaay moo ma def soxna jaara ndax man saalum saalum laa jógee Kaolack ñëw bi ma ñëwee fii bu ma ne sax samay famille yëpp ay tijaan lañu woon mais bu nekk murit bay nekk Baay Faalu Maam Jaara grâce moom moo ma def soxna jaara nàmpatal nu ci xiir ñu ci te ku nekk soxna jaar nekk Baay Faalu Maam Jaara yaakaar naa yow liggéey sëñ Touba rek moo la ñor te ginnaaw yàlla moom moo ñu ko def ñu ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom yàlla na xippee parce que man maa ngi ko yëg ba ca guddi avant Mansour Diop di ko wax ñu woo ma téléphone guddi wax ma ko dañ ma ko wax téléphone rek ma xam sama néeg kenn nekk fa mën a yàlla rek nekk fa nekk fa jooy ba sonn jóg bi ma jógee sama xarit laa njëkk xalaat boobu veyu tabaski la ma fekk ko place mu xool ma rek ne ma bàjjan yow sa bët yi dafa mel ni dangay jooy de ma ne ko déedéet jooyu ma boobu sama xol fees na te mënuma xamoon lu may wax mun ma bàjjan dangay jooy de ma ne ko jaar tëjal ñu dem mu ne ma lu may tëjee noonu mu ne ma bàjjan yëngale xew màkka man de maa ngi woo ay da jotuma ko ma ne ma ne wëreet wan ko ginnaaw boo mënatuma téye samay rong rek mu jóg topp ma ñu ñëw ba ci lëndëm gi ma taxaw ci lëndëm gi xam ne mënumaa xool ma ne ko nañ dem kër ga ñu woo Ayda mu a ma ah loolu daal bàjjen góoma ayda bokk na ci mais maa ngi koy wooree jotuma ko ma ne ko ñu dem kër gi bu ñu demee ñu woo ko ma jiital ko ba ci kër gi ñu ñëw ñu tëdd si daal mu jékkee-jékki rek daanu fudd ay bàjjen bu ma kenn wax ne ay de ci la bokk ma ne ko yow doo bàyyi li ngay wax ay de bokk ci nañ ko téléphoné ñuy woote muy sonné rek di sonné rek ñoom moom ñoo moom ba presque 4 heures du matin man ak moom fii ci suuf ñun ñaar rek ak yàlla kenn ñetteeluñu ma xool ne mu ngi bëgg sonn ma jóg na ko xaaram wutale la meew nga naan génn ci bitig bi romb magasin rakkam bi fii rakkam bu góor bi mu ngi téléphoné Amérique jabaram ma romb leen ñu woo ma bàjjen foo jëm si xaaju guddi gi ma ne damay jënd fii meew rakk jàng ma vidéo di naan ma waaye sa bët yu xonq yi lan la ma ne ko damaa wànnent damaa àppalo ma ne ma bilaay boo fi gumbaa du mën a jëndal weer benn frère am ñoom yëguñu dara du Amérique du kenn ma yëg ko man te mënuma ko wax kenn ci kër gi ñëw naa gis kër gi ñu ngi taal télé ñëpp a ngi waxtaan moom mi ma ànd àndal it ma ko koo wax ma dem jënd meew ñoo jox ko mu naan man ay bàjjan ay damaa ngi woote rek muy coupé mu ne ko xam naa daa nekk ca maladie yam dafa nekk ci maladie rek mu ne ma ay bàjjan ku may njëkk a wax ayda ci la bokk mu ne ko déedéet ayda bokk ci bàyyi noonu defal ko defal ko defal ko ba 5 heures du ma jóg dem sama kër 9 waa seen TV man su jóg bi mu ko déclaré presque suñu xar yëpp dañu koo jéggi koñ bi yëpp nag fii fees dell foo sànni mbàtt mu takk kenn waxul sa morom noppil kenn mënul wax sa morom noppil fekk xam nga lu war a am rek ay am moom mii kenn mënu koo téye dañoo songante rek wattante nooy bàjj lii nga bëggoon a wax waaye ma ne ko waaw waaye mënuma la ko woon a wax nañ gëm yàlla te xam ne ñàkk nañ soxna jaaraa ko jël mm-hmm. wàcc ay dafa liggéey ba wàcc soxna jaara moo ko fay walla mm-hmm. ca màkka mm-hmm. foofu moo neex wallaay mu ni nag nag njaay da koo xamoon ndax jour bi nga xamante ne si lay dem màkk fii la ñëw bañ ne si guddi gi lay dem ma ñëw fii ci kër gi fekk jaar mu dugg néegi yaayam toog fi lu ma 30 minutes boobu xam naa ñëwagu leen sax ëpp na ko tëju ci néegu yaayam moom Aïda nekk fa nekk fa nekk fa lu yàgg génn fekk man ak jaar ñu ngi waroon ànd am benn malade bu ñuy seet Dominique ñu ne ko Aïda déposé ñu dem ñu ànd ak moom dugg ci oto bi mais mënuñu yegg Dominique tellement que deux pas yu mu dox rek eh meen Ndiaye eh meen Ndiaye mu taxaw chéri chéri ñëpp ay chéri mel ni kuy tàggatoo ñu dem ba ca ko ñu Dominique xaritam bii benn bakkan mu ne ma gees na ma ndey Sall mu ne ah, mu ne ma Soda saar fu mu dëkkee fii mu ne ko meer koñ bii la rek xaaral ma dem woo ko mu ne ma noo bàyyil ba ma dem ba ñëw mu wàcc ñu Dominique bi mu wàccee am na lu mu ñu doon wax de mais dafa jaxasoo mu ne waa ah, Aïda mii moom mais taxul sa ñuy xalaat affaire yooyu mais boo ko xoolee rek nga xam ne Aïda mii c'est ça nga xam ne kii moom mu ñu doon tàggu mais ñun xamuñu ko woon wallaay njaay mm-hmm. yàlla na xippee àjjana ku baax ku yaatu ku mën a jàppale doomu aadama si njobootam ak ay jàmbur booy seet ne jàmbur yi sax ñoo gën a bëgg Aïda Ndiaye Badara Lo ndax lim leen di defal bëggul ku ñuy néewal doole tey jii bu fi nekkoon macha allah kon ah kon ñun ñii ñëpp dem nañu xale yu góor yu ndaw yi nekk fii yëpp dem nañu Amérique ndax moom koo wax mu leen dama liggéey dimbale sa waajur man sama famille xamuñu woon jaay man kër gi ñoo ma jàngal jaay maa ngi jàng de yor samay diplôme mais jaay rek laa bëgg moom rek laa gëm parce que moo ñu ci nàmpatal liggéey jëruñu rek nangul kenn ko taxawaayu ci fenn waaw. lépp ci fàttaliku suñu yaay ayda Ndiaye Badaloo muy koo xam ne euh, togg na ba sonn euh, xeex na ba sonn maanaam xare na ba sonn lépp loo xalaat rek lu nit di sonn maanaam di ko daj ci coono euh, ci li nga xam ne rek mooy soxna Buso ak li nga xam ne mooy jabootam da ko cee def ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk ba ci daar bali ca Poroxaan yàggul bu njëkk ba euh, nit ñi amaana xale yi bëri wu bëri boobu waaye jamono ji ndax mën nga ñu wax ci lim beeg yëf yi fu mu toll waaw daayira ba nag ah, xale yi nag mm-hmm. ni la ko taan sooda waxee rek nee na xale yi bi ayda di commencé boobu juróom fukki xale lañu woon mm-hmm. waaye léegi dem nañ ci lim bu takkoo takkoo takkoo takkoo te xale yi yaakaar naa ne sëñ Moustapha Bassirou mi fa mi ko sasoon moo moo Aïda mm-hmm. am na lum ci def ndax dafa bàyyi woon ak ayda ak xale yi Aïdaay jox lekk mooy jox naan mooy jox yére saabu dàll sax mm-hmm. ayda moo ko daan jënd di ko yóbbu Porokhane ànd cee nag njabootam bàyyi woon njabootam de. gis nga rakkam yi ay da bokkal ndey ak baay da leen daan sas da leen daan sas ñu yékkati ay sas di ko ko jox. Hmm. waaye li soxna jaaro wax rek na ayda demoon na ba nga xam ne ku demul moom mu dem. xam nga yoonu da nga ci toll foo xam ne danga naan ku demul ma dem. Hmm. ay da na ci Serigne Touba soxna jaara foo xamante ne ku demul mu dem. Hmm. ñi mu doon sas nag da leen doon dimbali. ndax am na yoon yoo xam ne ku ci woo nit danga kaa dimbali ndax boo ko bàyyee rek du dem. waaye ta ta na yëf yi amaana tey jii moom dëddu na 2015 euh, ak léegi ay at la euh, ndax yu bëri yi ngeen daan jot yéen a ngi koy jot ba léegi. yu bari nag jotatuñ ko. Hmm. ndax li soxna jaara wax rek naa ay da fi loxoom daan egg. Hmm. mënatuñ faa egg. mënu leen fa yeggee euh, tey di occasion boo xam ne tey jii 7TV euh, may na leen ko euh, boo leen doon lancer appel ci jàppale ci liggéey bi ndax comme ni mu ko waxee na mu daan def ku dem mu dem ku demul mu dem xam naa ne ak ni ma leen gisee seen taxawaay noonu ngeen di def ku leen ci jàppale da leen ci fekk waaye tey jii bu amee appel boo leen di lancer lan lay doon. xanaa appel bi ñuy lancer rek mooy. ndax xale yi takku nañu macha allah bëri nañu. dépense bi yokk na euh, mbébét ci yaa ngi fi te yu bari amaana euh, ka ko songoon bu doon moom mënoon na ko daan waaye li nga wax rek euh, li ko suñu borom may amaana peut-être may ko ñëpp loolu nag mooy dëgg nag mhm. ndax Aïda ku demoon mu dem ku demul mu dem waaye soxna Jaara mi nga xam ne tey moo téye liggéey bi fa la ko yeggoon mënu faa egg mhm. ñun ñi nga xam ne dañoo topp ci ay suñu ay ginnaaw fa loxo Aïda yeggoon ñun mënuñu faa yegg kon ñu ngi lancé appel ne bu poroxaan ñëwatee ku ko man soxna jaaraan gi lu ko ci waay jox da ko yóbbu poroxaan gis nga bu màggal poroxaan gi ñëwee moom mii di jigéen mooy dem daara jolof jënd ay nagam yóbbu poroxaan ndugg mi fii lañ koy jal ci bunt ci digg kër gi dinañ bu ñuy dem dinañ def fii ñaari biis ak oto yu ndaw kon xam nga loolu du bu ndaw. dëgg la te loolu kër Aïda la jëm dayre ba jëm ca xale ya ñoom taan Soda Sarr ñi ñoo ko yore. Hmm, ay biis la bu jëm ci këram. day ja am bu jëm ci këram ñun daayira bi ñu yor fii kër Aïda la jëm. këram ga nekk poroxaan këram nga nekk poroxaan waaye lépp ñun ñoo yor ndugg mi. Hmm. moom mii mooy jëndi nag yi nag yi jëm ca xale ya mooy mooy ndugg ndugg ma jëm ca xale ya. waaye bu ñu demee ba poroxaan ñii dañuy dem kër ñii dañuy dem kër ayda ñii dem sa xale ya waaw mm-hmm. xam nga kër ayda neexut bàyyi mm-hmm. te daara jaat kenn du ko bàyyi mm-hmm. léegi nag ñii dañuy dem ca daara ji ñii dem fee ñoom taan sooda ñi ñooy dem ca daara ji soxna jaara mii moo yor kër ayda waaye xam nga xale yoo xamante ne bii tey ëpp nañu juróom benni téeméeri xale ku leen bëgg yor ñetti fan ba ñeent loolu xaalis la. day xaw a metti day metti mm-hmm. te bu gàmm gi ñëwee noonu lañ koy def bu ñu nee suba la gàmm ñoo leen di yor jouru gàmm ga ak bu ñu gàmmoo ba ci suba sax. Mm-hmm. loolu lépp nag yeeg ndugg meeg yépp ñoom ñoo koy yore. Mm-hmm. loolu metti na. kon ku leen ci fekk ci ngeen jël. ku ñu jël mu ci nguur geeg ñëpp lancé nañu ñëpp appel. ñëpp appel la ñu lancé ñëpp appel rek kuñ ci fekk si ñu jël. tàllal nañ daal ñëpp suñuy loxo mhm. ku ñëw loo ñu ci loo ñu jox ñu dugalal la ko ci maam jaara ji mhm. loo ñu jox ñu dugalal la ko ci maam jaara ji waaye nag kii sonnul de soxna jaara sonnul tàyyiwul bàyyiwul mhm. xañ na la magam magam manoon mënatu ko de waaye lu mu am mi ngi ko ci def moom njabootam ak njabootu Aïda Ndiaye jërëjëf euh, kon nag euh, soxna su màgg soosu euh, moom lañuy sargal di ko fàttaliku mu liggéey liggéey bu am solo taa soxna su ma la mm-hmm. laajee lan nga dund ak moom loo xam ne amaana tey jii bokk na ci liy tooyal sa xol ci jógeem fii lan nga ñuy wax soxna Aïda xanaa mu wéetal ma rek mm-hmm. wéetal na ma lool ndax dama daan toog ba yàgg rek ma boot sama doom boobu ay tout tànk laa yor dem këram mu teral ma nag loo xam ne bu ma fa jógee bu ma ñëwee sama kër sama boroom kër day xam ne man sama kër sa sama mbokk laa jóge mu suturaal ñépp nag doon nag jàmbaaru liggéeykat bu la daan woo sax la dama jaayi ba ñëw ñun bu ñu man bu ma masaan soxla daf naan ma xëyal ba wàcc nga ñëw wuy si ma kon kooku xam nga bëgg nga bëgg na nga liggéey mm-hmm. lum la masaan wax danaan la demal nga liggéey boo liggéeyee doo mere kenn ba léegi loolu laa sama njaboot dem leen liggéey ku liggéey doo mere kenn ku la fajal nga fajal sa bopp ku la fajalu nga fajal sa bopp ah Aïda Ndiaye nag man moom daf maa bëggoon ndax xañ na sama man damaa seddoo woon ak moom ndax sama yaay. Mhm. day benn bu jigéen rek ci ñoom ci papaam sama mhm. yaay benn bu jigéen kese la. Mhm. may ab jaamam nag mu yërëmoon ma lool am na fi benn foire boo xam ne dama ëmboon ba diis dem di jaayi. fu mu tourné rek dajeeg man. fu mu tourné rek daje am na benn bis dafa daje man daal ne ma xam nga fu xam nga soxna Diop loo may nur ma ne ah, mu ne ma may mu ne ma ba ma nekkee grossesse nekk màkk nii laa doon def. Mm-hmm. te booba am bu baax ma wër. waaye mënu toog bañ a liggéey. ndax ci loolu la la tàggat. waaw kay ñëpp liggéey la leen di wax dem leen ngeen liggéey. Mm-hmm. amul nag doomu baayam wala doomu ndeyam joo xamante ne bi nekkoon nga këram te bu xëyee du la ne demal liggéey mm-hmm. ñii da leen a joxoon ay magasin ñu cay xëy ñii mu jox leen xaalis liquide ne leen dem leen ngeen liggéey mm-hmm. mu miin Makka miin Médine ndax euh, euh, ci 2015 moo nekkoon 32e euh, ajam maanaam fanweer ak ñaar ca la génn àdduna mm-hmm. muy bërëb goo xam ne dafa bëggoon a bëggoon bëggoon fa ba fa lañ ko denc lan ngay àddu ci loolu ah, màkk moom dafa bari sax ay turandoo nag. moom foofa ca màkk. màkk. Mm-hmm. dafa bari sax ay turandoo. Mm-hmm. ndax nekk gum fa nekkoon xamanteeg naar yi di jëflanteeg ñoom lu baax te li ma gën a neex ci moom mooy ku jege màkkare danaa ay teral na ma mm-hmm. man amal sama famille kër papa yoo xamante ne bii. buñ demaan màkk buñ fuñ tasee man rek dana la ma xëy di njaay defal màkk te yemalewu ko woon ci kenn ñépp nag papaam ñeenti ñu góor la am ñu yóbbu na leen màkk yóbbu sama yaay muy bàjj na mu am ñeneen ñu mu yóbbu màkk bëri na waaye màkk googu maa ngi lay xamal ne la ku fa daan lekk moo lay jox nga lekk ku fa doon naan moo lay jox nga naan dégg naa danaan togg ay bërigoy fonde di ko séddale ca màkk ca màkk man moom dem demaguma ñaanal ma ma dem di dem waaye da daan da daan séddale ay bërigoy fonde dégg naa mm-hmm. di ko joxe mm-hmm. lekk nag moom yaay jaamam <laughs> waaw di nga dem incha allah suñu borom dina ko def ndax nag yéene la woon ci at ba mu génnee àdduna te nag yéene bi rek euh, liñ naan yéene bi rek yegg na kon tey jii loolu yàlla mën na ko yàlla mën na ko def euh, te ku ñuy leen jàppaleel seen daara bi ñu daal di jël ndax nag euh, jooyuñu onkuñu yuuxuwuñu mm-hmm. euh, li suñu tata jaar wax léegi dafa am solo euh, suñu sëriñ bu tedd boobu di sëñ Muntaxa Basiru mm-hmm. dafa ne waañu li nga xam ne rek mooy ay Aïda Ndiaye Badalou tànk ñoom jëluñu ko delloo ko jël waaw muy muy muy muy metti yéen a ngi ci muy neex yéen a ngi ci ku leen ci fekk yéen a ngi ci ku ci fekkul yéen a ngi ci kon loolu rek ndam la di wax ne rek bu màggal poroxaan di ci sax dinañu waajal daal di waat lancé mm-hmm. waat appel rek képp ku ciy jàpp mu daal di siy jàpp euh, ma bàyyi la rek nga tàggu suñ tataa soxna waaw so taan man mm-hmm. day yëf li ma ci gën a neex nag mooy fii ngeen ko defee mm, di diwaan di diwaan bii nga xam ne fi la ay di juddoo fi la yaroo mm-hmm. fi la defee carrière yépp badaloog moomu nga may laaj léegi fii lañ ko may ci kër gi lañ ko may Aïda doomam yëpp fii lañ juddoo kon fii ngeen ñëwaate ci ba ci biir kër gi ngeen defee fi émission bi loolu sant yàlla la mm-hmm. Aïda tamit léppam fii la ko defoon waaye nag yaay Aïda nag ma masal la ci tuuti mm-hmm. aka jàmbaare woon moo tuddoon aji binta faal aji moo yoroon marché ngi fii mm-hmm. jéeg bu awul dugg ci moom ngay dem ku amul dépense ci moom ngay dem ku xamul woon dara ci moom ngay dem mu digal la lu baax tere la lu bon jàngal la liggéey bari na jéeg juy liggéey fii ba am seeni yëf yor seeni sët yor seen kër ci ci tànk aji binta faal ci nga jaar mm-hmm. waaye nag bàyyi Ayda Njaay moo doon wax ay rakkam liggéey leen denc ma liggéey jox leen ngeen dundee bàyyi Ayda Njaay rakkam yi mu bokkal ndey ak baay da leen doon wax liggéey leen denc te booba yor neen seeni jabar de mhm. liggéey leen denc ma liggéey jox leen ngeen dundale seeni doom xam nga loolu yombul yombul te jamono jooja loolu la doon wax mhm. kon Ayda lu mu am rek du sens mérite la ba ba muy dem ba muy tàggoo dugg na néeg way juróom def fa ay wax def fa ay ñaan ay waxtoo waxtoo waxtu yàgg na foofu. Mhm. muy ku ku ku mel ni ku xamoon ne euh, du fa duggaat. day day da doon tàggoo si. Mhm. da doon tàggoo si waaye maa la xamal ne la Aïda moom pour ngeen demaat di defaat lii ci beneen kër. Mhm. ba gis fa ku mel ni Aïda Ndiaye ah xanaa sëtu Serigne Touba. wala doomam sëtu sëriñ Touba wala doomam. ñun nag ñun ay ñun ñi nga xam ne ay mbokkam lañ ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sant suñu maam ji nga xamante ne bii tey lii lépp moom la mambaalo faa xaas mm-hmm. lii lépp moom la ndax jamono wul ak Serigne Touba te lépp Serigne Touba fay na ko ko mm-hmm. lépp lu mu am rek sëñ Touba moom fay na ko ko mm-hmm. kon ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla bu baax di sant suñu maam di sant suñuy nijaay di sant aji binta faal bi nga xamante ne bi moo jur waaw xale yi loo ñuy wax ci ñoom ah, xale yi daara ja ah man daal xale yi xam naa ne daal maa ngi sàkku daal ñi nga xamante ne bi ñoo yor tey mën a dimbali nit xale yi nañ leen di jox ndax nag xam nga sëñ Muntaxa moom tàyyiwul bàyyiwul xam naa ne moom lii ma wax sax moom du ko wax. Mm-hmm. du ne kenn joxal xale ya. Mm-hmm. am na lu ñu leen di jox waaye nag bu ñu sañoon nag nit ñi nag nañu doon def ñu di ko def di fa dolli. di fa di fa dolli dépense. Mm-hmm. di dolli ca kër ya ndax daara ja ña ngi koy tabax ba léegi pareegul. ñaari kii yi ñu tabax tey bu ëllëgee ñu tabaxaat ñaar classe di dolleeku da donga yi di dolleeku. kon ñi nga xamante ne bii dañuy def ngir yàlla rek lu ñu am nañ ko yóbbu paraxaan. foofu la sëriñ Touba ne foofu la sëriñ sëñ Touba nee na poroxaan ku ma fa jiitu fekk ma fa mhm. boo fa nee jàng ma fekk la fa kon kay sëñ Touba nga poroxaan kon nit ñi lu ñu am nañ ko yóbbu poroxaan te yàlla mhm. tax mhm. sëñ Muntaxa nag na ko ñépp ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool. te wér. <laughs> moom dafa yàgg sax dina am ñetti yi at. <laughs> jërëjëf yàlla na ko am ci barke yeneen bi jërëjëf taa soxna. <laughs> waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf euh, di la wax ne rek euh, lii moo ñu indi woon tey muy fàttaliku sa sang boobu nga xam ne comme ni nga ko waxee desalu la leen. waaw desalu la defal na la lépp. saa yoo ñëwaan ba mu ëmbal la di dem. Euh, weer di pàkkar ñi rek. waaw di lekk di naan. macha allah. kon nag euh, neex na jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf euh, merci beaucoup. kon nag euh, tey ñii la ñu seet si woon muy sëtu Mame Balla Ndiaye. nga xam ne rek euh, ña nga fële ca kër mbaalo ñuy mm-hmm. nuyu ñëpp euh, may jaaraat rek fa ma jaaroon mm-hmm. ndax nag sañu maa dugg kër mbaalo te nuyu ma sama yaay Ngoone Njaay borom table yaa Ngoone <laughs> ak euh, doomam joj di Aline Njaay Ndey Xadi Njaay mi ñu facilité waxtaan bi aussi duñ ko fàttee mm-hmm. di wax ne nag mbokk yi lii moo ñu indi woon tey ginnaaw bu ñu duggee ci suñu kër maam jooju semp ci sëtam boobu nga xam ne rek exemple la woon muy soxna Ayda Njaay Bada Loo tur bi rek xale yi mujjee juddu dañ ko xool daal di koy gëstu gis ne moom la liggéey waxatuma la ñi nga xam ne dañoo fekkee muy koo xam ne la mu waroon a def def na ko fii ca Dakar mm-hmm. fii ci Pikine gi nga xam ne la juddoo jóge fi dem Porokhane def dem tuubaa def dem ba fi nga xam ne rek fa la yonent bi tëdd sallallahu alayhi wa sallam daal di fay def mhm. kon kooku wàccoon ak ñëpp euh, di ñaan rek euh, yàlla nañu suñu borom yokkal li nga xam ne rek mooy leer gi mhm. waaye nag di wax ne tey moom lañ doon waxtaanee amoon ci mbégte lool lool lool fekk si ki nga xam ne mooy suñu tataa euh, soxna jaara mi nga xam ne rek sërëm la ak suñu tata bi di soxna Diop mhm. Euh, ñoom ñëpp tamit ñu daal di taxaw euh, muy loo xam ne lu rafet la ñu jaajëfal bu baax a baax a baax ñi facilitel hommage bi Ndey Xadi Njaay euh, doomu ne ñu ngi koy mhm. jaajëfal bu baax ma jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci wàllu cadrage bi Cheikh Sadibou ak ki nga xam ne mooy Papa Diop Serigne Serigne ci Serigne Sarr ci li nga xam ne rek mooy wàllu logistique bi montage Lamine Mbengue ak ñi ci ginnaawam yëpp waa production Papis mbay ak ñëpp ñu ngi leen di jaajafal amoon mbégte lool lool lool indiwaat suñu suñu yaay di jàmbaar lool lool lool nga xam ne bu ñuy wax ci moom sax xol yi day daal di sori ndax taxawaayam ci li nga xam ne rek mooy yoonu mouridisme taxawaayam ci téeméeri euh, soxna jaaro ci ñaar téeméer ba ci junni soxna jaara nga xam ne ña nga fële ca fa nga xam ne mooy daara jata poroxaan mm-hmm. kon nag mbokk yi li ma leen di wax mooy dig daje mardi incha allah ci beneen numéro ak keneen ci li ci xolam wala ak keneen ci li nga xam ne rek loolu la def ci mim réew euh, muy sept euh, voix du cœur fi amaani laa jàngin jëf merci beaucoup à vous